salaamaaleykum mbokk internetu dakarnet point com comme ni ñu koy defee saa su nekk ah, di dalal képp ki nga xam ne ni fii nii ah, ndaanaan nga ah, tey nag dañuy ñëw tey ci ndaanaan bu mag ki nga xam ne ni axlu làmb ñëpp ko xam mi Pape Sarr dëkk Pikine aussi tamit mu ne man amaana dinaa gunge samay rakk mais aussi euh, damay tourné nekk promoteur wara a tëgg ay làmb kooku mooy Pape Sarr duñ def rek lu dul jox ko mun mu nuyoog mbokk internetu Dakar net yi après ñu di ko moom ci waxtaan Pape Sarr ñu leen di di ziar. waaw dellu ziar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu suñu caméraman bi di nuyu équipe Dakar net yëpp. du leen ñaanal bu baax a baax di rafetlu seen liggéey. wax dëgg yàlla jàmbaar nga maa ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax parce que déplacé wu naa ñëw ba ci kër ga foofu gis naa liggéey ni ngeen ni ngeen xarañee ci li ngeen di liggéey set na rafet na ma leen di ñaanal képp ku fa nekk ci directeur bi ci kaw ba ci suuf képp ku fa nekk rek maa ngi lay ñaanal yàlla defal la jàmm affaire bi gën a yaatu waaw di nuyu waa pikin yëpp di nuyu suma yaay di ñaanal suma papa fi mu nekk dàqal ko fi mu jóge xam nga di nuyu di ñaanal suma ndijaay sàmba Sarr moom it maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax di nuyu waa Pikine yëpp xurunaar bi ma juddoo waa cité Lobatt cité Sotiba Icotaf Pikine Ridis képp kuy yeewoo pikin man Pape Sarr nuyu naa la di nuyu waa diaspora bi yëpp waa yi képp ku fay yeewoo rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax xam nga di nuyu waa Suède chaque jour dama koy wax suma xarit mu ngi foofu di curki curki mook ko soxnaam maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ndamit suma xarit ñu koy wax Xaadim euh, Fall moom mu ngi ba Paris xam nga moo moo xaritam doomu baakaan doomu baakaan taawu baakaan sekk maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax képp ku nekk Paris nuyu naa la xam nga maa ngi nuyu bu baax a baax a baax aussi Alain ak Jimbo tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu Toldo maa ngi koy nuyu di nuyu Laay Guèye Laay Ndiaye maa ngi koy nuyu Laay Ndiaye ba États-Unis maa ngi nuyu Suwaadu di nuyu abu Sall di nuyu Mama Lobaat di nuyu Libaas Ba di nuyu Vieux Ba di nuyu Aliou Seera suma rak di gërëm bu baax tamit tey kii ma gën a indi fii tey muy suma xarit ñu defandoo lépp fii Pikine muy Ibu moo tëgg Mama Lamine Garga tey ñëw nañu pour ma ànd ci liggéey bi ak moom taxawal nañu Garga 2 Mama tey moom moo ma indi fii tey di nuyu ñëpp di baalu ak ñëpp xam nga di nuyu ñi may seetaan tamit ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp di nuyu population Pikine képp ku nekk si diaspora bi parce que tey su ma amee tey tey bu lii sax amee tey waa diaspora bi laay wax ñu leen di bàyyi xel parce que tamit bëgg nañu chaque jour di am ay information ci Pikine xam nga di ñaan daal yàlla na fi jàmm sax di ñaan tamit xam nga waaw combat yi fii am tamit yàlla nañ ko bëre si jàmm ku nekk ñibbi si jàmm alors mi ngi noonu euh, yaakaar naa ne kooku xàmmee ngeen ko kooku mooy Pape Sarr euh, duñ defee rek du dul dugg waxtaan ak moom euh, Pape Sarr aussi gis nañ nga tëgg ay combat yu mag ay affiche mais dañoo gis ne benn combat ba léegi bi nga ko annoncé nit ñi ñu ngi koy xaat aussi xamuñu combat wam na la demee ba léegi pourquoi mënul taxaw mu nekk combat mobile ak Bour Sine dañuy laaj nga andi lu ñu wàcc tuuti rek ci combat boobu. waaw combat boobu hmm, dafa taxawoon. Mhm. yàlla def nguur gi arrêté affaire yi. bi ñuy ñëwee tamit ñu joxaat ñu date mooy le 10 octobre ñu tëgg ko fii mais mobile de dafa mujjee dafa dafa mujjee dem États-Unis waaw bañ ñoo bëreel dem yàlla def na nag tamit bi ñu suñu suñu journée bi passé jël nañu adversaire u mobile de jox ko ngeer bu zap ngeer bu zap waaw ngeer bu zap kon tamit comme tey mhm. làmb daa am na muy doxee mhm. te lépp loo gis rek da ngay def ndànk tey ma ànd seeg ñu teey ku mel ne Alain ak Jimbo am na nag lu ñu yoon may mhm. lu ñu yoon may dañ doon xaar décision CNG CNG mhm. génne na décision am aj na mobile de cinq ans mhm. waaw bi mu aj la ko waaw cinq ans du takk ngemb aj na ko cinq ans yoo xamante ne mobile de du ci takk ngemb mais pourquoi mu aj ko cinq ans waaw tey bu nekkee dañoo joxe avance boo xamante ne ci biti la eggul CNG dara du ko ci fekk. mais combat bu ñu régulariser ba pare. cas mhm. force majeure yàq ko. du coobare mbër bi. du coobare promoteur. Mhm. Mhm. lu nguur gi wàcc la fii. sam suñu combat bi moo gën a ndaw yi ñu arrêté ci làmb bi. Balla Gaye dañ fee arrêté combat am. Siteu Papa Sow dañ ko fi arrêté. estat suñu suuru làmb ji amoon na Ibamaar. ñooñu onkuñu ŋaaŋuñu. ñi ñu tëgg nii ñëpp ñëpp ñëpp amul kenn ku ci génn sorti wax ci lu ñaaw. dégg nga. Marley daf ci génnee dëfal ay moromam. Kalmu Ndour noonu Eumeu Sène Junior noonu Néko Relais noonu te ñoo ñooy mbëru grand combat yi. mais moom dafa bëgg jël avance rek te du bëree. non jël na suñu avance. waaw mais pourquoi nangul bëree lu ñu. Mhm. nee na du ñun ñoo koy tànnal ay CNG mooy jox dat mooy ñëw ne ñun la ñun ñun la ñun ñoo ñun ñun la. ñun lañu ñu njëkk arrêtel suñu combat ñun la njëkk jox date mhm. biñ ñu joxee date nag la 10 ñu régulariser combat bi mhm. loo jàppoon danga nga koo war a bàyyi mhm. du dëgg dëgg la léegi nag bi affaire bi amee man am na lu newoon sama diggante ak moom am lu ma nekkoon sama diggante ak ay magam may si dox tànku jàmm comme Pape Sarr kay da ngaa taxaw ci stade bi ne lu waaye waxoon na ci dellu ah, moom loolu la waaw lu waaye waxoon na ci dellu loolu mbëru cent millions yi bi ma ko jëflanteeg ñoom mhm. ba ma dellu ci mhm. dañ maa tegee na le d'accord man ñi juróomi mbëru cent million laa fi engagé ñu tegee ma nële ba jàmm am na tey mhm. mais léegi comme moom nu ñëwee euh, wax la loolu léegi loolu naka nga ko gisee non moom euh, problème bi mooy am na loo xamante ne yii waru ci woon parce que même bu nekkee ñetti fan dugg seetaan naa ko ci benn live moom mobile 2. Mhm. mu ne bi ñuy ñaanal waa ji ndimbal oxygène moom moo ma woo téléphone man dinañu ñaanal nit Pikine nga may woo oxy nga may woo téléphone. ma dëkk Pikine soq moo ma woo téléphone. Jules mhm. Balde Junior ñëpp xam nañ dëpp début feebaram ba nii kenn njëkkuma fa. non loolu kenn ci bi ama noonu. Mhm. man dara du xew fii pikin mbër bu dëkk ca àll ba ñëw di ma woo téléphone pour may dimbali mbëru Pikine mais Pape Sarr yow yaay Pikine sax yaa ngi may dëgg gis nga comprendre gis nga man xaw ma xaw ma ay nar hmm. man du ma fenkat man duma fenal kenn hmm. dégg nga hmm. man duma ma fenal kenn mobile tuuti na ma koy fenal man di teg ci jaram loo xamante ne loo amul la yaa ngi may dégg gis que mhm. booy teg ci deru ay doomu jaambur ak ay nit ñoo xam ne xamalu leen xamaloo leen dara yaa ngi dëkk Grand Yoff du dëkk pikin dangay teg ci seen der lu baax mhm. engagé naa benn mbëru Grand Yoff benn booyam bu ñuy wax Assane Kara mhm. Grand Yoff bi mu ñëwee place idi dafa ne Pape day fen du tëgg dara waaye booy boobu tey mu ngi yor sama avance moom moo wax moom mobile 2 moo ko wax ñëw palaasu idée fi booy bi di booy mbër boobu di di fréquenté ne ko Pape Sarr day fen rek du la tëggal dara tey moom jox naa ko avance na lijjanti fen boobu. mais est-ce que tamit Pape Sarr euh, ñun. Euh, non déggoo li ma la nii. waaw dégg naa la mais déglu déglu non dégg bu ma déglu ma. mobile 2. Mhm. bu nekkee dafa yore saako wax. Mhm. man camion laa ci gaare suñu buntu kër. <laughs> d'accord. ku ci yor sa saako wax. Mhm. di nga fekk ku ci muur camion di la alors d' accord euh, Pape Sarr lu ñu mën a xam mooy que ni euh, dañuy gis à chaque fois comme ni nga waxee boo tëggee combat euh, ak nit ñu dem ba ci yàgg naan la ay Pape Sarr moment bu du bëreeg yooyu est ce nekk na Pape Sarr tey jii bu fekkee da ngay joxe avance di nga ko joxe fi nga xamante ni tey jii moom fa la ñëpp di joxe pourquoi problème yi bari di am ci sa combat. woo avance su ma suñu régulariser woon suma koom suñu régulariser woon komba bi sax ñu mën a wax. dañ koo régulariser. Mm-hmm. fay pourquoi à chaque fois. non déglu non ñu ngi c'est la la première moo te benn mbër la ma ne la lu leer la ñu joxe ñun dañoo fay ay gémi régulariser suñu komba joxe reliquat mbër yi mhm. ba fayal mbër bi bor nga naan ma ay dootu gi ñu la ñun ñoo ko fay deux deux deux cent cinquante mille yu ko mobile deux yorel combat mooy kalaafu soq yéen ñi yéen ko fay ñoo fay non kooku dafa war a ma ne la xoolal décharge nekkul ci mobile décharge nekkul ci mbokku mobile décharge bi ci ma Pape Sarr la nekk parce que Pape Sarr ak jogoy ñoo konteel Fallou Ndiaye xaalisam. mais est-ce que jotul Pape tey ji nga jël ménagère am comprendre nga dem ba ci moom toog waxtaanoo. non ménagère am asalaamaaleykum ménagère am dañ koo aj <laughs> ménagère am CNG aj na ko man man lu ma man du ma man fi mu toll nii. CNG mhm. moo décidé. Mhm. CNG moo taal ordinateur am wan na ni mobile 2 mu ngi ci contrat bëriwul ak naa ko juróomi at. léegi nag. Mhm. Pape Sarr. daa joxoon mobile de xaalis. léegi lan nga bëgg mu de si carte d'identité Pape mhm. contrat yi turu Pape Sarr. Mhm. comme CNG léegi def na liggéeyam. Mhm. des na Pape Sarr. d' accord comme CNG des na liggéeyam. Ah, des na Pape Sarr Pape Sarr léegi est ce est ce dañoo bëgg a xamee kon Pape ko da nga bëgg a waaj delloo la sa xaalis. waaye mën a la déggoo mën na la est ce que lu waay waxoon na ci dellu. nañ ci dem ñu xool. nañ ci dem di xool ñu xool nañu dem ñu xool ndax ndax nguur gi nguur gi nekk fii ndax sama baay da ko tabax wala ñoom seen baay dañ koo da koo tabax wala tribunal yi fi nekk wala attekat yi fi nekk ñun ñun ñoo leen ñun ñoo leen créé wala sama baay ko créé wala seen baay ñoom yoon moo fi nekkal ñëpp kon da nga bëgg ah, da nga ko bëgg a yóbbu ci ma ne la déggoo CNG joxe na dégg na teg na li muy def maa ci des bi nga xamante ne man mi nga xamante ne tey. Mm-hmm. man maa signé ak yow man yow sa ménagère. Mm-hmm. contrat yi man maa ci des. léegi nag nañ ci dem ñu xam ne nag lu waaye waxoon na ci dellu. tey laa ciy dellu ba mu saf <laughs> lii laa doon xaar rek seen yéen ne kii mm-hmm. ñu wax. xam nga. pa deuxièmement ci live bi nee na man live bi mu wax laay tontu. parce que damaa mer moo tax ma génn. la la wax ci la la la wax ci live bi. ci live bi nee na. Mhm. bi mu ñëwee CNG ñëwul pour baalu dafa ñëw fii CNG buntu CNG mu ngi ànd ak président écurie bi. Mhm. président écurie bi dogaale ma man ak Jumbo moom mu ngi taxawee nale mhm, bi mu ñëwee président écurie bi ñoom ñu entendre mobile 2 ak président écurie président écurie bi xam nga la laa bëggoon. damaa bëgg ngeen jéggal ñu. président écurie bi moo moo ne léegi dañoo bëgg ñu xool ñu trouver solution pour nga jéggal ñu. ma jimbo Jumbo. déglul kii. kon xam nga ne kooku mu ngi ut tànku jàmm. dëgg la moom mobile mu ne bàyyil ñii mais président écrit bi moo ko fa indi li ñu wax ci biir saalu CNG. ak li ñuy wax ci biti ak ci micro yi. bokkul. Ah, dafa am ay wax fii wax fee. ma ne la bokkul. Hmm. yow di nga ñëw ubbi bureau bilan seen naan ko maa ngi nii man nga doon seen maa ngi nii man kii nii yooyu yooyu ñu wax ci biir bureau bi. Hmm. ak yi ñuy wax ci internet ak di ko wax ci live bi du benn. mais danga nga jàpp ni yow comme ni mu ko waxee moom defewu ko noonu. waaw yow ma ne la sawaay <laughs> sawaay euh. déggoo ma ne la xam nga kan laa fi bàyyi man yàlla yonante bi Serigne Touba ak kilifa diine yi ñoom maam Alaaji Maalik ak yooyu noonu. Mhm. ma taxaw wax ma dara. dam la ci comme la koy delloo xoolal. Hmm. soo bi nga soo bi nga njëkk nàmp sa weenu yaay di ko di nga ko wàccuwaat. sama diggante ak yàlla. dëgg la man sama der bi dafa set kenn du ko tilimal. non dëgg la nit ki tamit boo ñëwee. munoo ñëw am say taas ba pare ñëw di. tilimal ay nit. Mhm. yoo xam ne dañoo jël seen alal jox la. dëgg la na nekk ñaar dërëm. Mhm. mais soo damee internet yëpp wër la nga ne quatre cent cinquante mille lañ la jox avance mais quatre cent cinquante mille xanaa deux cent cinquante mille bokk si yi doon nekk ci suuf nag yi cag-cag yi doon jël si nag. léegi mais quatre cent cinquante mille nga ko jox avance voilà. avance bi deux millions un million deux cent la. xam nga doo ko soo soo joxee nit soo ñëwee signé moom wax ak moom ba mu nekk un million deux cent. Mhm. sa waay kii nag du mbëru deux cent millions de. <laughs> <laughs> yow sa waay. Euh. kii du mbëru deux cent millions de. mobile mbëru laal la kon. dama ne la non da mbër la. champion la champion la waaw. Mhm. mais du mbëru deux cent millions ba muy taxaw daal ay man quatre cent cinquante mille mooy sa kase. loolu ngay yuuxu noonu mooy sa kase. 450 000 bi. 450 000 yooyu. waaw moom lañ ko jox avance waaye 250 000 boo ko boolee 450 000 ñaata la yu ñu fay Fallou Ndiaye ñaata la. d'accord du 700 000. 700 000 la na ko calculer. <laughs> wala loolu daf dañ dañ dañ dafa bëgg ñu def ko àddiya. moo est-ce nekkul tamit euh, euh, fàttewu loolu moom dafa yaakaar. boo déedéet dafa taxaw ci télé. comme yaa ngi taxaw di weer sa kase. Mm-hmm. yow yaa taxaw adduna yëpp du la seetaan nga ne quatre cent cinquante mille lañ ma jox avance mais da nga ciy laa mais moom jël na ko wala jël ko quatre cent mille nest jël na ko xaalisam waaw fi ñu ko fi ñu ko joxee dafa neex dafa tombé événement tabaski <laughs> d'accord sama billaay wallaay man ay bu ma doxoon ci buntu arène nationale ba for seize millions du ko delloo kenn moom mi neen da koo for delloo ko <laughs> léegi loolu naka nga ko gisee. loolu mooy ñaaw la dagg xol. <laughs> gën loolu waaye Pape Sarr. loolu mooy ñaaw la dagg xol. mais loolu gisee moom mu ne for na 16 millions delloo ko. waaw man de wax yàlla delloo guñu suñu 450 mille. <laughs> kon da nga a jàppale ko loolu noonu mu wax noonu. yow non waxuma amul de dama ne mm-hmm. delloo ko. Mm-hmm. ñun delloo guñu suñu xaalis. quatre cent cinquante mille am yooyu. nga joxe delloo ko kay dellool quatre cent cinquante mille jàmbur. <laughs> alors bi ngi doon comme ni ko Pape Sarr waxee moom nee na seize millions la for delloo ko kon war na mën a fay quatre cent mille jàmbur. du quatre cent cinquante mille quatre cent cinquante mille ñaata la. mobile deux deux millions quatre cent la war a fay. moom moom mu ne quatre cent cinquante mille avant. deux millions quatre cent mille lay fay waa rent DKR yoonu CNG nekku ci fi mu toll nii. ñu ngi yéen ñaar la ko fi mu toll nii. Hmm. CNG wàccoo naa ñun parce que añ na ko cinq ans dama ne la deux millions dina fay avance su Bour Sine adversaire am dina fay avance am. Hmm. mais alors kooku mooy Pape Sarr yaakaar naa ni ak Pape nu mu yàggee ci làmb yaakaar naa ni tey jii man mun naa ni mérité wul loolu parce que euh, ki ki nga xam ne daan ànd ak mbëri champion Pikine te yàlla def mu ne man comme man damaa bëgg làmb lépp lu mu munti am dama ko mu ñëw investir ko ci làmb Euh, nekk promoteur di jënd xaalis bu bari di ko jox mbëri kon yaakaar naa ni moom warul mérito lii aussi tamit euh, am na ci lu ñu dégg mu ne combat Boursine bi ak mobile bi daa am kenn ku ko booleel euh, pour le 15 bi pour le 15. na ce pas que moo remplacé mobile 2 mooy ngeer mhm. bu zap. mais est ce xam est bi ñu koy décroché pour joxaat ko avance boobu est ce que méttiwul ci. non métti na trop. Mhm. parce que dolli nañu Boursine xaalis. dolli nañ ko xaalis bu bari parce que man sama bopp man maa Mm-hmm. Alain ak Jimbo buur siin mm-hmm. bi onkuwul bi muñ mm-hmm. moom mooy tànn adversaire bu ko neex d'accord parce que man noonu laay fonctionner gis nga góor ah nit bu goree da nga koy dangay ñëw bu mu la gën a gore man maa ne buur siin tànnal ku la neex ma të ma ñëw dox ko waaw léegi ma laaj la foofu léegi Pape Sarr comme comme comme comme wax nga ko loolu mm. léegi alors comme ça yow nee nga mobile la nga ko aj 5 ans. kon est-ce euh, après bu 5 ans yooyu jeexee pare nga moom pour mu jëlaat euh, avance boobu noonu mu jëloon mu góor na ko bëree kaak ak mobile. mu mu bëreewaat ko ak mobile. non xawma mais jël jël na avance ba pare damay laaj rek yow yow ki nga xam ne yaay promoteur bi quoi. dama ne la man xam nga fan laa basé wu. waxu ay tëggaat ko moom mobile. lu waaye waxoon na ci dellu. <laughs> wax jooju laay topp ba mu sës. <laughs> alors bi noonu comme ni ko euh, Pape Sarr waxoon ne lu waaye waxoon na ca dellu loolu lay topp. loolu laay topp ba mu sës. waaw <laughs> dama ne la. ku ci yor sa saako wax. maa ngi camion bu ma baas suñu buntu kër. ci yoru sa saako wax ju ñaaw. Mhm. maa ngi ciy yor camion bu ma baas. xam nga boobu ba léegi kenn déggatuma mhm. bàyyi naa yu bëri bàyyi naa ko. mais gis nga booy teg ci nit ki ci garab. wala mhm. di wax di di jaay ne da mun a wax. fii nga may fekk. alors mi ngi noonu. Ah. sooy jaay mën a wax tege na ñu dëkk la micro dañ ngay taxaw di di wax yoo xamante ne da lay leer yow lii ngay wax nii dafa amul problème mooy nit ñi ñuy seetaan du ñu ay doom ñun ay doomu aadama ñoo ñuy seetaan ay kilifa ñoo ñuy seetaan. ñu ñuy seetaan xam nañu fenkat ak ku dul fenn. man du ma duulkat du ma fenkat. dégg nga parce que baat boobu da koo génnee ci benn live. Mhm. ne ku taxaw ne dafa baalu day fen fenkat bu ko gisee da koy xàmmee. sa président écrit moo taxaw woo ma woo Jumbo ne dañoo bëgg ngeen jéggal ñu. Mhm. man Pape Sarr maa ko wax te wax ji du dañ du jeex. d'accord alors mi ngi noonu Pape Sarr ah, nee na ah, ak wax ji du kii alors duñ def lu dul Pape Sarr rek. Hmm. <laughs> baax na. d'accord Pape Sarr léegi ah, yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee ci Mbok Mobile seen problème yéen ñi nga xam yi yéen doon laaj problème boobu te yaakaar naa ne Pape Sarr leeral na lépp aussi mu am benn affiche bu mag. Ah, bi nga xamante ni ah, dañ ko xaar nañ ko ay ati at yàlla suñu boobam ah, war a dogal que ni ginnaaw suba la war taxaw mu nekk Boy ñaa ak Tapha ku xam waa pikin xam Pape Sarr Pape Sarr mbëru Pikine bu nekk ànd naa ak moom gunge na la nga am ndam andil ko lu nekk nag roi des arènes nag lu nekk aussi Pape Sarr combat boobu nan ngeen koy waajee mu des presque mun naa ne benn fana combat Boy Niang ak Tapha Tine nan ngeen seen mbër waaw préparé nañ ko ànd nañu ak suñu rakk ànd ak waa pikin balaa may jublu si combat boobu rek damay wax tey waa Pikine lay waxal population Pikine supporteru Boy Niang yi supporteru Eumeu Sène yi supporteru Ama Baldé ñoom ñoo ñëw fii pour taxawu Boy Niang dam leen di ñaan ngir yàlla war a sóori bu combat bi jeexee nañu jël bawal bawal yi gunge leen ba ñu jël oto si jàmm loolu ngay ñaan loolu laay ñaan nga xamante ne ñun ak ñoom ñoo bokk pàkkalaay mbaay bu pikin bii mhm. ñoom ñun bu ñu xewlee dara kenn du leen fi njëkk parce que tey ku ma gisanteeg ak yi daal yi mhm. di supporteeru tafaatin mhm. xam nga siga bëgg tafaatin muy suma xarit am na loo xamante ne xeju fi man loolu laay njëkk a lancé mooy tey supporters yi mun nañu sax bokk nekk supporteru Boy Niang ak supporteru Tapha Tine yi ñu booloo nekk. te làmb kafooree la sax mhm. man fi mu toll nii foofu laa toll di wax ci waa Pikine ñoom mhm. laay ñaax ci loolu. Mhm. di leen ñaan ngir yàlla bu fi kenn xeex. bu fi kenn damm ay seize. waaw comme comme li xewoon ko dimanche bi passé Papa Sow ci yàlla may ndam. ñu jël sa mbër longu yóbbu. man loolu laa xam gis nga rayante bi. ñaar ñu ñu fay seeni million ñooy rayante muy Tapha ak Boy Niang. ñun buñ fi reyantee kenn gaañu ñun ñooy jëli ji fay yi mhm. ku ci dee ñun ñooy jàpp suuli mhm. kon nag nañu bokk ndey bokk bàyyi mhm. ñun ñoo leen ñoo leen ñun ñoo leen dalal ñun nag duñu dalal ay gan ba ñëw di leen teg fitna comme ñun ñoo leen dalal leen dalal si jàmm bu combat bi jeexee ñu gunge leen si jàmm ñu foo kaf affaire bi foo la nekkatul tey Pape Sarr boobu. Hmm. ak Pape bi du benn du benn ndax Pape Sarr léegi promoteur Pape Sarr du promoteur Pape <laughs> uh-huh. bi ma bi ma sama mbër indilee roi des arènes. ama seen laa doyal sëkk sëkk sëkk sëkk ci yenn yi. damaa doyal. Uh-huh. damaa doyal. alors mi ngi noonu comme Pape Sarr ah, <laughs> yaakaar naa ni ñëpp nañu ñëw ci ah. fair play. Uh-huh. mi ngi lancé message bu am solo. Ah, hmm. ne euh, supporteru Tapha ak euh, Boy Niang. ñoo ñooñ ñoo bokk nday ñoo bokk baay comme ni nga waxee loolu tam da ngay rafetlu bu baax a baax mm-hmm. mais aussi Pape Sarr dañoo gis Tapha Tine Ama daan ko euh, dëgg Pikine Papa euh, Tapha loolu metti ko euh, ba mu ne tey jii bu daje woon nag maam ku ko képp nga xam da koo daan rek ci ay nga ko daanee mais ku mu ci yoon boo nee puusal ma jàll da ngay puus nga a nekkaat revanche bi mu war a a jël ci Boy Niang naka nga gisee loolu noonu waaw loolu la xam nga tey Tapha Tine duñ ko sous-estimer mm-hmm. man Tapha ndaanaanam xamuma ko tey Tapha mhm. dama ko seetaan Assane juuf mhm. Tapha dama ko seetaan Assane Diouf Tapha ay defetam bëriwul mhm. defet yu néew la am te soo xoolee ay ndaanaan ñoo ko daan dégg nga ay ndaanaanu mbër a ko daan mais revanche boobu mu war a jël euh, jël non jërul revanche sumu toll ni jërul revanche mu ngi doog a bëreeg Boy Niang moom Ama Baldé à te Ama Baldé mooy takkal ngemb Boy Niang ñëw na tey ci suba moo koy takkal ngemb <laughs> waaw boo koy takkal ngëm ba pare jox ko sarax bi. ne ko bëreel daan ñibbi waaw bëreel daan mais est-ce que affronter ku mel ni Tapha Tine Pape Sarr yomb na. billaay wallaay tallaay bu doon sama sogo mu xeex ak moom barki yàlla. mais Pape Sarr gars yi ñi ngi naan booy Niang am na ñi ngi naan ci am na ñi ngi naan laay wax am na ñi ngi naan ah, Boy Niang ah, xeex bi du avantage am ba pourquoi yow nga jël sa décision taxaw ne ah, Boy Niang bu fekkoon ne la da nga naa ko mu taxaw xeex ak gan gi. xam nga man booy ñaa bi ma koy xam mu ngi sant sak siraat nekk xale bu ndaw mhm. di jàng di jàng bokk sant sak siraat mhm. jàng xeex dégg nga mhm. carrière Boy bi nga dalee seetaan Boy Niang ba tey ban mbër moo ko mos a yóbbu ardo daanaan la amul benn mbër bu ko mos a yóbbu ardo ku tenir ku tenir Lac de yóbbu ko ardo Lac de Guiers mooy le penseur ah waaw gis nga temps bi mu bëreeg Boy Niang Mm-hmm. gis na la dëgër. moo gën a naqaree daan ci làmb ji. Mm-hmm. naanaan la de. mais wàllu bëree bi. ah wàllu bëree bi. wàllu bi. waaw diggante tafaatin. waaw ñoom naa bu ñu jàppan bu ñu jàppantee nekk ci làmb la làmb la dañuy bëree déggoo ma ne la ñoom ñaar ñooy des ci diggu géew bi booy ñaar kenn du ko jàngal li ngay def dama ne la booy ñaar dafa am kombaa Tafatine am komba booy ñaan daanaan lay bëreel. mais ku nekk am nga point fort sa morom boo xam ne foo ko jàppee nañ xam ne. point fort booy ñaa mooy bëre ak xeex da ko jàng ñaar ñëpp te daanaan la. combat Tafatine. Mhm. xeex ak bëre la man. nga nangul nga ko mun bëre ba dafa mun a bëre. dafa a bëre ama ñu ngi naan ah ñu ngi naan non dafa mën a bëre. kan moo la Tafatine mënul bëre. bari na xanaa seetaanuñu fii Tafatine. xanaa seetaanuñu Tafatine bu mooy xale yi doog a judd ñoo seetaan làmb jooju Amadou Bari. Mm-hmm. moo Yékini Senior. non si moo Yékini ah. Senior waaw mu mbor ko mbor bu rëy waaw dafa dugg si kalaaf am ci ñaari victoire benn défaite. Mm-hmm. dégg nga. Mm-hmm. dafa toog benn 6 ans xaw ma 5 ans mbër daanu ko. comme yaa yeb tey Boy Niang est-ce que mën xam bu jour ba lan nga yebee Boy Niang. dal teey dal. ànd ak dal teey. jox sa adversaire cër ba mot sëkk xam nga ne kii ngay bëreel mhm. moo la jiitu ci làmb moo la ëpp expérience mhm. jox ko cër ba mot mhm. ñun loolu lañ koy yabee jox ko cër na ko jox cër rek mais am na ñu ngi naan bu combat bi yàggee du arrangé euh, kii waaw yow man bu lu mu gën a yàgg mu gën ñoo arrangé kii di xale yow boo ñaar xale nga naan ay combat bu yàgg ak bu kii xale la <laughs> waaw yow kii di xale bu ndaw waaw <laughs> booy ñaa yorul ñeenti jabar booy ñaar tamit amul 40 ans de. <laughs> waaye yow booy ñaa di xale bu ndaw tey yorul ñeent fukki at de. tafaatin moom xale la de tafaatin xale la de. déggoo ma ne la sous estime. ñoom ñaar boo gisee nga xam ne pare nañ. déggoo benn baat. boo xamante ne wàccee naa tafaatin. Mm, dëgg la. dëgg mm-hmm. su ma ko defee rek man duma ma gor. Mm-hmm. Pikine laa dëkk nag. Mm-hmm. mais tamit. benn côté bi dangay am loo xam ne danga nga ko koy may. Mhm. ndaanaan la ku téye bombardier. Mhm. kalaate ko kalaata yu metti mhm. yaa ngi may dégg gis que. boo taxawee di naan tabaatin nii tabaatin nii da ngaa soxor. dëgg la dégg nga. ndeysaan. waaw man yoruma xol bu ñuul. damay wax qualité yi nekk ci tabaatin ndaanaan la. mais mu ngi dud mu ngi daje kullu ndaanaan. booy ñaa waaw. bilaay wal kitaabi mu ngi daje cappaacoli pire. <laughs> ñoom naa ni leen gisee ñoom xam naa ni ba instant yi yaakaar nañu abi na parap ba ku nekk euh, joxe li nga xam ne euh, moom nga liggéey. en tout cas daal. Mhm. wóolu naa staff Boy Niang. Mhm. gis nañu suñu papa Mansour Diop. Mhm. mu ngi ci wetam. gis nañu Pikine yëpp ñu ngi ci ginnaawam. gis nañu autorité Pikine ku mel ni Isaka Diop. ku mel ni Lamine Gueye. ku mel ni Modou Gueye. Pape Ndong. ñëpp ñu ngi ñëw jàppale ko. d'accord Pikine yëpp génn. Mhm. dégg nga. Mhm. xam nga ñoom Ousseyn ñoom ñoom Issa Mané. Mhm. ñoom ñoom ñoom Mor Ñang ñëpp génn waa Ndaayaani ñëpp démb ci guddi dañoo wër di takk ay banderole loo xamante ne billaay wal kitaab bi laa wax nii gëj naa ko sax def. mu leer ni combat jaral na leen daf ñu koo jaral jaral ko waa Pikine may wax ñu def maas. chaque jour dama koy wax ñu def masse ci fair play. Mhm. bañ a xuloo bañ a xeex. waaw kooku mooy Pape Sarr comme ni nga ko waxee bañ xuloo bañ xeex aussi tamit euh, Pape Sarr instant nii euh, mu mu nekk man mu nekk keneen ah mi ngi xalaat ba xam lu lu amoon. Euh, ci combat Papa Sow ak Siteu bi ñu bëri daal am na xel yi am na xel yi bëri yoo xam ne ñu ngi dem que ni est ce loolu noonu muul amaat est ce tey nga wax tey ban taxawaay la CNG mun a taxaw ba sauver combat yi parce que adduna gëj nañoo seetaan combat bu mag quoi vraiment ba jël am. waa démb bi démb fekk na ma fii si stade bi Bira seen génn ak euh, chefu policier yi génie yi mm-hmm. Mm-hmm. ak euh, promoteur bi mm-hmm. euh, xam nga di caalis ñëw na wax ku nekk fi ngay toog xool affaire bi lii jàngat la woon bu ñu defar deuxième bi bu police defee suñu secteur bi suñu quartier yi quartier bii nii muy cité Sotiba xurunaar jëm ndaayaan jëm essence tali mag jeunes yi fa nekk jël nañu seen matuwaay ci yu mel noonu buntu kër gu nekk. Mhm. ñu si nekk. Mhm. jël nañu seen matuwaay ci ñooñu nga xamante ne tey. Mhm. dañuy xaar làmb jeex. ñuy sonnal nit ñi demoon làmb wala ñoo xamante ne seen yoon nekkul ci làmb. Hmm. ñun moom non ñun suñu quartier bi moom. bii hmm. Hmm. jël nañu suñu matuwaay ba mu mot sëkk. d' accord ci quartier foofu nga waxee. mais man damay waxee ci wàllu làmb ji. comme ni ko amoon keroog combat presse ñu préparé ko deux ans. ba ba mu des du ñoom ñaa ñu sëgg. am la fa xew loolu laa laaj tey jii. li li li fi xewoon du xew fii bu soobee yàlla. parce que lii lii ma gis nii. Mhm. matuwaay yi ñu jël. Mhm. ñoom ñaar du ñu sax bokk yoon bi ñuy jaar. Mhm. tëggkatu booy ñaar. ci wàllu booy ñaar lay taxaw. tëggkatu tafaatin ci wàllu tafaatin lay toog. Mm-hmm. bu ñu ko defee jàmm day naan ñooy. Mm-hmm. ñoom ñaar ñu daje ci làmb ji dama ne la loolu du ci am parce que man laa la man. Mm-hmm. loolu bokk naa si ñu koy xeex tey. taxaw même bu ma gisee waa Pikine di déplacé wu di dem di bëgg dem foofu. man dinaa leen te bu jaree ma reyante ak ñoom def ko. bay combat bi continuer parce que ñun jàmm lañ ciy ut. kombaa bi jàmm rek la man jàmm rek laa ciy wut <laughs> parce que xam nga la man ah. samay dëkkandoo lañu. bawol bawol yi damay samay nit lañu. Mhm. su may xarit lañu su may dëkkandoo lañu. Mhm. te làmb dafay jeex. dëgg la dégg nga mhm. keroog bi sama sama nijaay bi gaañoo Samba Sarr. non ñoom ñoo fees dell ci dëj bi ah. parce que ñoom ak Samba ñoo dëkk ak man. dëgg la dégg nga ñu nekk fii tout près pàkk làmbaay bi. soo xoolee pàkk làmbaay Pikine bi supporteeru Boy Niang mu ngi fi. supporteeru Tapha Tine ñu ngi fi ay mbokku Tapha Tine ñu ngi fi te samay nit lañu. kon am na loo xamante ne ñun dañ koy moytu. Mhm. alors tamit ah, sama cadre bi ngi may signaler que ni ah, waxtu bu ñu amoon jeex na duñ defee du lu jox la nga tàggatoo mbokk yi du doon seetaan. waaw maa ngi gërëm ñëpp nag tamit ah, di baalu àq ñëpp tamit su nekkee li ma fi wax am na lu ci xaw a lëng-lëng rek ngeen xamante ne te xam nga xel yee kiwul maa ngi ciy jégalu ñëpp nag. Mhm. di nuyu nag ñi may seetaan ñëpp. xam nga di nuyu Pikine ñëpp di jox rendez bu ñëpp dimanche fii di ñaanal ñëpp jàmm maa ngi jox rendez bu tamit la 15. janvier stade Iba Mar Diop diggante Nguer ak Bour Sine di joxe rendez-vous tamit le 27 février fii arène nationale diggante Zarko ak Mbaye Gouy Gui maa ngi nuyu ñëpp di nuyu nag diaspora bi bàyyiwuma kenn ñëpp nag bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn kenn di leen wax ñu jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi leen di wow lépp lu ci waay mën nañ si jàpp taxawuñu ba yàlla may ñu ndam maa ngi nuyu ñëpp di jéggalu ñëpp di la nuyu bu baax a baax a baax yaak équipe dakaar Net ah ah ñëpp maa ngi di nuyu bu baax a baax a baax di nuyu suma doom Cheikh Fall turandoom Hamadi Mari waa Kër baat Muslim suma mag mu ngi Nouadhibou mook doomam ñoom ummu xam nga Aliou Seras xam nga di nuyu waa Somone fi ma daan liggéeyee xam nga Aliou mu ngi fa di liggéey di ko ñaanal jàmm foofu comprendre nga di nuyu mbëru pikin yëpp. maa ngi nuyu ci kaw ba ci suuf commencé ci Eumeu seen Lanjang Ama balde Père de képp ku fi nekk rek Mohamed ndaw Tyson bépp mbëru Pikine bu fi nekk man maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen woo di leen invité dimanche ñoom ñëpp ñu ñëw taxaw seen rakk seen doom jërëjëf alors mi ngi noonu ah, kookoy ah, Pape Sarr yaakaar naa sax dañuy am mbégte di ko dalal parce que nit la boo xamante ni ah, boo ko gisee ci xët-xëtam mu nga ne moom nit coow la wala mais tàggatoo ak moom doo xam kooku moom mooy kan def rek di ko remercier ci maanaam possibilité bi ñuy may à chaque fois saa yu ko bëggee jot bëgg a waxtaan ak moom mu mu dalal ñu. di di gërëm tamit sama cadreur bi Dieng sàmm di wax di dajee ak keneen incha allah jaa ngeen jëf.